شفيع الخلائق يوم القيامة باتفاق سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن إمام أوليائه حفيد رسول الله برزق البرازق تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى سيدنا وشيقنا ووسيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني مبقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi nuyu jullit yi ci tànt bi yépp jiital ci kilifa yi teg ci ñi ñu yilif te loolu waxin la waaye fii ay kilifa rek a fi toog kilifteef benn ëpp ca nekk xeetu yonent bi waaye suñ ko bokkee nekk nag ñu nu yilif toog kilifa yaa ngi fi nuyoo bi nag nuyoo sunu sëriñ bii toog la Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh El Hadj Mansour Sy mu Seydi El Hadj Malick su wax ji jubee ba ni xocc ñaanam la yàlla nangu su wax ji dëngee sama lott la maa ko mënula jàllale waaye ku def li nga mën lépp boole ci yéene bëggoon mu mel nañ ko bëggee la ca des mën nañ la ko baal maa ngi nuyu waa daaira bi ak daa daaira yi loolu ñépp dugg nañ ci biir maa ngi ndokkeel jullit yi ci at mu bees mii bu at miy màggat yal nañu fi fekk bu nu fi fekkee yal nañu fekk ak tal bu nu fi fekkee ak tal yal na nu yàlla bàyyi ak sunu ngëm ñi yàlla dul seet seen dossier ndax daf leen a baal lépp luñ mës a def te jaaduwul yal nañ ci yàlla boole noo ngi sant yàlla bu baax ndax teewoon nañ fi daaw ci waxtu yii lii moo taxoon ñu teew fi nii lañ fi teewe woon boobaak tey noo ngi lekk noo ngi naan noo ngi sol mbubb te bu doon pexem kese kese kese ñàkk ko xaj na ci moo tax léeg-léeg sangu-sang yi wax wax joo xam ni boo koy jàng day gàtt waaye boo ko méditer day gudd yonent bi ñam wuñ ko mës a taaj su lekkee ba pare te ñetti baaraam lay lekkee du ci dugal juróom yépp te ñetti yoon la cay tibb te bu cay tibb ma ngi cay tibbe bismillahi bu paree ni alhamdulillahi waaye dafa am lum ciy teg lu mat a seetlu ñam wumu wumu su ko masee lekk ba pare daf naan alhamdulillahi alladi razaqanihi alhamdulillahi wa razaqani hada taama min gayri xawlin minni wala quwata maa ngi sant yàlla mi ma wërsëgal ñam wii kat waaye du sama pexe du sama kattan ndax li ma def ba récolte ci lu ma añe waaye def na ko ba pare fande kon xéewal lekk-lekk yomb gi mooy tax doo ko mën a jox akam ndax dugg ci duus sangu sol mbubb parfumé wu tagu sa soxna ni ma dem te ñëw yëfi jàmbur la te bala ngay xam ni yëfi la kiko moma su ko nango rek nga xam ni yëfi jàmbur nga yoroon amna ko xam ne dafay waaj a tàggoo ni yuluk ci buntu kër gi febar daaneel ko bo xam ni bii dootu mukk te demul barzak xam nga koka ma ngi dem te ñew ja ja mu yoroon te mu yëfi jàmbur moom la borom jël moo tax lu la yàlla mayeeti gërëm ko ca sant ko ca ndax boo santee dolleeku te dolleeku rek lañ bëgg moo tax njol makka nee na ñaan yi bi ci gën a gaaw mooy sant nee na alhamdulillahi afdalu duaa yi nee na sant yàlla moo gën ci ñaan yi nun nag miinu nu cant ndax alhamdulillahi doyul alhamdulilahi doyul seetal li nu yàlla defal ma joxe ci benn misaal néeg boo xam ni soo ca duggee mën ngaa wax ak monde bi te doo génn seetaan li xew ci monde bi te doo génn soo bëggee mu sedd mu sedd soo bëggee mu tàng mu tàng te yii yëpp bouton koy def waaw loolu loo defal yàlla ba mérité ko xam nga lii kenn defalul yàlla dara ba mérité ko waaye dangay defe ni rek yaa ci nekk defe ni yaa am sa njëgu climatiseur defe ni am sa njëgu téléviseur defe ni yaa amit sa njëgu téléphone te fekk na yàlla rek la ko xéewalee ndax fi ko jëlee waaye daj na ci lu ne te amu ko xam nga moo tax Seydi Aboubacar wax ne lu waay yor nañ ko làmb jox waykat yi du ñàkk sax dënn yu rëcc ni sëñ bi den nar na tey gaañi bari xaalis waaye ñii buñ doon sol mbubbu jamaa sax mérité nañ ko xoolal sa naw li yëpp toog ngay ŋaax ba ñuy seen sa làmmiñ wu ndaw lii kenn fayu ko kenn fayu ko ñuy waxi caaxaan ñëpp feet nañu seeni milliards ñuy dépense di leen te lekk-lekk ruslu na sax ci jullit yi ruslu na sax ñuy waxi caaxaan ñëpp feet nañu seeni milliards ñi di tagg ki gën ci nit ñi sayyiduna muhammad dara mënul sotti xanaa kon ëllëg jaanara baax kooku lu ma ci sànni rek la maa ngi départ incha allah at lañu tudd at at moom la ñuy firee sanatu waaye sanatu nag firiwul at listiaara la dañ ko ab sanatu mooy firi lu soppeeku soppiku baatub soppiku moom la ñuy at xam nga lu tax ñi bejjaaw judduwaale wuñu bejjaaw atay dem di dellu si ba soppi leen ñu xëy bejjaaw ñu naan jàppal ci sama loxo ma jóg ndax sama rhumatisme bi judduwaale wuñ ko atal leen ko roof sëñ bi ne moom lay wax walay si waxuma la dama cee daanu si rek dama sof rek jéggal ma day si ah yal na ma ci yàlla musal wallaay wallaay yal na ma ci yàlla musal yal na ma ci yàlla musal ñu naan jox ma sama yat wi ñu jox la yat wi nga sukkandiku ci cukkus cukkus yi dem mënoon ngaa dox ata dem ba si kër tànk ya si jégal ma rek si dem ba maa ngi jégalu si waaw nee kon nag jégal na ma jigéen ñi moom kuñ leneen daal la kalaameeg ñoom booy ba tiit ndax ñoom mën mbëri làmb yi fuuf mbërum làmb dóor mu daanu lay def jigéen day lamsal jëkkër ja daanu ki naan abal ma sama yat wii ma sukkandiku ci pour dem ay tànkam baaxoon na at mii baagante ci moom moo dem bay metti tànk ya ki naan jox ma sama lonet yi ma door a gis bati baxon na at mi dama ko delu ci mo dem ba yak vision ba motax sanatu moy fini soppé ko so demé ci suratul baqara da nga gis luxa ba amoon na gor guñ nan Uzayru mom la jif yi ne won doomu yàlla la wa qalat il yahud ibn allah Uzayru mom cause bi taxoon ñi ne doomu yàlla la téré yi dañ wax ne tawret junni sar la benn saar bu ca ne toll na ne alquran Uzayru makkaloon na ko lépp cœur par cœur di ko récité Uzayru boobu dafa romb dëkk dëkk ba taax ya toj garab ya mabbu miir ya sawanu mu ne anna yuxyi hadihi llahu bada mawtiha maa ngi questionné sama bopp waaye ci biir question bi laaju ko weddi la dëkk bii ni mu toje ak ni mu tasaaroo ak ni mu mel mu nan la ko yàllay dekkalaate defaraat ko ba melaat ni meloon yàlla ni ko yow mi koy wax xaaral ma mosal la dee nga gis fa amaatahu llahu miata aamin sunu borom rey ko cent ans téeméeri at alquran nee na góor gaa ngi waroon mbaam nee na mi ngi yoroon figg figg nee na mi ngi yoroon itam ndox góor gi bi mu faatoo mbaam ma tasaaroo der ba dem yàpp wa dem lépp tasaaroo yax ya dem bopp ba beru fële figg ji ni ñum dara soppeeku ci pendant cent ans sunu borom xëy rek roof ko ruumu dekkiwaat dundaat sunu borom ni ko dundaat nga yow mu ne amoon ko xoolal ma defar mbaam mi ci sa kanam yax bu sunu borom xajji rek nga roofu ca sa morom yax yi war a ànd xamante mi di di composé wu ba ne ñum sunu borom poosé ca bopp ba poosé ca yàpp wa muuraat ca der ba roofaat ca ruuga mbaam ma ne ñokkit wuti borom sunu borom ni ko defaraat naa la yow defaraat naa sa mbaam léegi nag fandur ila taamika wa sharabika lam yatasanna xoolal sa ñam wa xool ndox mi dara soppeeku wu ci baatu lam yatasanna ci la ñu xare sanatu muy firi at foofu laa jëm si woon xam nga firi at ci la ñu firee ci la at jóge innal jadidayni lil bila gis nga bila boo maasee ci kaw mooy balaa bila mooy ràpp balaa mooy nattu innal jadiidayni ñaar yu bees yi peq di subaak ngoon ida mastawlaya soo leen méngalee ala jadidin ci liir bu bees bi peq adduna yaahu lil bala ñu xëy rek màggatal ko ñu xëy rek màggatal ko ganuk suba ak ganuk ngoon ñooy gane si liir bi ba xëy màggatloo ko noy yi suba ba ngoon kooku bu yàlla doon fayeku nit ci bit budget mu ndax dana dese dara bu ñu jàppoon sa bakkan cinq minutes yoo noyyiwul bu ñu ko bàyyee nga xam valeur u noyyi ban heure a jot trois heures mooy vingt cinq fii trois heures mooy vingt cinq di dellu si waat ci ëllëg mille quatre cent quarante minutes la vingt quatre heures sur vingt quatre mille quatre cent quarante minutes la benn boo ci ne faaf xéewal la bu ne faaf dellu si xéewal la nga yëqiiral rek defe ni sa njàmbaara sant baax na de sant baax na te bi ci gën a baax nag nga jaarale cant gi fi ko yàlla jaarale waxna barki bi ci kayar ni sayyid al alxaaj malik andi wu fi diine fi la ko andi wu fi tariqa bi fi la ko fekk waaye kulóoraat na ko kulóoraat boo xam ne ku la neex tëkkaleel ak alaaji malik waaye bul jum ba dendale boko ko rek jor du benn wax naa ko barki biig danaa ko waxaat andiwu fi diine ji fi la ko fekk andiwu fi tariqa bi fi la ko fekk mais sóobaat na ko kulóoraat ko kulóor boo xam ne ku la neex tëkkaleel yaa xam waaye boo juumee ba dendale xam ne du benn du benn mukk seydi xaaji malik nee na capital yi addina yi benn rek ko ci gënal ñu ne ko lu tax mu ne moo gënal yàlla capitalu ragal yàlla beneen boo am yàgg yéeféer yee ko bokk lu sa tax mi gudd gudd gudd amna ko taxaw nan jeen n'existe pas ta amna tax moma bo amé auto ku wedd yàlla amna ko bo defé tour de monde ku wedd yàlla amna ko so amé jabar ju rafet ku wedd yàlla amna ko compte bancaire ku wedd yàlla amna ko way ragal yàlla ku ragal yàlla rek la te sunu borom nee ne yi bi ci gën moy ragal yàlla inna khayra zadi taqwa moo tax Seydi Malik ni fattaqi in rumta ilman aw turida najatin او تريد كرامات فتغتنموا شغل حاج مالك نينا سو فكيه داغا بغ خم خم رجل يالا يالا جانغال لا انا سو فكيه داغا بغ باخ تاي باخ الك رجل يالا سو فكيه داغا بغ كوم كوم ادينك مو الاخره رجل يالا وغمض العين واخضع وامدد عنقا تحت المقادير لا تسال فتظلم سيد الحاج مالك نينا تعلل سلوس رن كو سوف دوغال يالا لوم دوغال مو نيهلا تبول ني بوركو كون نغا توغ والله لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون يلا كم لك لاج لي ميدف نون لاني لاج لي ميدف الا له الخلق والامر المبين فلا ترى ابدا ما يقتضي الحكم شيخ الحاج مالك نينا يلا نينا ما موم مبيري ما موم بيندي في لو في جسمنا يلا لم دنج لوخو ساتي جوتي ووتي كون لو سين نيت موكو كو جوخ بولا سي انيان فك وفعلك الله لم يسأل به أحد سوى الغبي غبي مشرك في دمي الله الله ما مولى نعمة جزاكم الله خير وإن مغفرة الرحمن أوسع من جزاكم الله خير ذنبي ورحمته أرجى من دمي jërëjëf may ma tuuti rek ma yeggale dafa am lu ma bëgg a développer lu tuuti rek dugg ak yéen ci miimee Seydi Hadji Malick waxtaanal leen ci rasulillahi moo tax ñëpp toog fi waaye lii ci la lii ci la de lii ci la ku bëgg a rawale sa boot dugal ko ci lislaam léegi lislaam mooy fekk nituk ñeen fukki at bu mësul jaar ci lu baax mu tëggaat ko ci instant bu gàtt gàtt gàtt defaraat ko ba mu yor jikko yonent lislaam rek ko man te dinaa la ci jox benn exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lu jëkk muy tuub dafa soppoon xiram sopp ko sopp ko ba xiram bu nekk confi confi bii ñuy ndekkee xiram bu nekk confi Omar ibn Khattab rek ko mas a am confiture bii ñuy ndekkee xiramam xiramu confi Seydina Omar ko mas a xam moo ko mas a am jàngal histoire ba mu jeex moo ci mas a am xéram boo xam ni confi moo ko defar di ca wax soxlaam di ca ñaan di ca raay bés nag mu xiif amul lu mu lekk mu lekk yàlla ji moom xataab moom rek ko mas am waaye pour la ni la lislaam a mën a tëggaat nit waaw moomu soppoon këram ba am yàllay confi waa yàllay confi moo ko amoon Ousmane yaa ngi yor xaalis di sarxe ak koy way waaw keneen mënul mën naa toog sarxe moom ku ko def mën ngaa jaar fu la neex waaye ku sarxewul nag mën ngaa toog jazakumullahu xeer lu ma doon waxati sax baraakaatu fi waaw Seydina moom mi nga xam ni dafa soppoon xëram ba am yàlla joo xam ni koofi la gis nga bi mu tuubee moom Omar ibnu Xataab islaam daf ko tëggaat jox ko beneen jikko ba garab gi saxaaba yi doon toog ca bayatu ridwaan doon ci jaayanteeg ci bi romb na ay nit ñu di ko ziyaare mu ne nañ gor garab gi ñu ne ko pourquoi nga ne nañu gor garab gi تقرب جي القرآن سينالك وني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا جي وقت القرآن نان جرم جريتي جرم ناني جم يلا بيني جاين تيك يو يون انتبه تصوف قرب جا نغني عمر من جور قرب جي من زيارة بيني كوي زيارة دما رجل مي يعني يدفع كمي خيرم مم أمون يلا يكون في من نين دعك قرب جي يون انتبه توعون سابي جاين تيك مم دخ بيني يدفع كخيرم الإسلام كتجات عمر بن الخطاب بوب نيو ني حجر الاسود ني يون با كوفون اريير ني كولو تخ موني الاسلام داف ماي بيغا جاخال موني بو كين جامو خير با بار ولبتي كوني نين فون خير خاجول تي سما خيل با ياغم ريفليشير نيكو انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك خير nga kesse manu lo ma jeriñ ci fone gi suma lankon lànkoon bañ laa fóon mënuloo ma lor waye dotul danger ndax gis na rasulillah fon la kon dana la fon ni dap xeerul fon xajarul aswad islam rek ko man sidina omar bobu wal gouverner moko développer ci sahaba yi ilmul ihsa moo ko jëkk a def moo jëkk a recensé peuple bind population ba xam ñaata lañu moo ko def masul nelaw guddi diirub li muy nekk amirul muminin su reeree rek gàddu na yatam ànd ak ku koy gunge di wër moomeel gi ba xam luñ nekkee di rond rek di rond rek bés mu ànd ak abdoulaye ibnu dinar egsi ci benn xur ni nañ noppalu benn sàmm ni jaseet ci kawam jiital xar yu bare ak i béy mu geesu abdoulaye ibnu dinar ni ko nattul sàmm bi ba xam mi ngi dox ci njub wala déet abdoulaye ibnu dinar koba sàmm bi sàmm bi ñëw mu ni ko bi ani hadi shaat jaay ma gàtt bi sàmm bi ni ko fa inni laa amlikuha moomu ma gàtt bi de mu ni ko jaay ma ko rek soo demee nga ne borom tillee lekk na ko mu ni ko su ma waxee loolu borom ba ba borom gëm ko ba d'accord ci fa ayna allahu ana yàlla bu boobaa ana yàlla gis nga ana yàlla jooju yëg-yëg boobu moo manqué ci réew mi chauffeur ba jóge Tëngéej yegg si croisement Cambérène deux heures jot alkaati yi wàcc gendarme yi wàcc feu rouge bi verte rouge bu yëgoon ni yàllaa ngi koy contrôler du burle parce que mën naa burle rek daje kuy jàll mu yenu ko fa ayna allahu jooju moo manqué looloo manqué réew mi ñaar la manqué looy def yëg ni yàllaa ngi lay contrôler ak sa doom indi dara nga ne ko foo jëlee lii moom la réew mi manqué yaa mariamu anna laki hada sayidatuna mariama dafa nekk ci mihrab ba di jaamu suñ borom zakariya yar ko dugg fa yër ko fekk ko ñam wu jóge aljanna mu ni ko yaa maryamu yow maryam anna laki haada foo jële lii baatu foo jële lii moom la ñuy waxatul xale yi jigéen yi solo tàggu la dem ñibbi si njël wala yoor yoor jënd robb fukki junni dal quinze mille francs saagu quinze mille francs xëy yanu lu moomul mel nu melul won nga xawma fum ko topé xam nga ko fum jënde saag ba dàll anna laki hada jooju mom la ñu manqué waaw moo ñu manqué te dañoo fàtte ne rasulullahi nee na alxayru kulluhu fi shabab wa sharru kulluhu fihim ñol màkke nee na yiw yépp a ngi ci jeunesse bi nee na musiba yépp it mi ngi ci jeunesse bi moo tax ndaw ñi laaj nañu sensibiliser leen tëggaat leen jàngal leen lislaam ñu xam ne feet yi ñu moom ak yi ñu moomul at mi defe naa juróom-ñaari feet rek lañ ci moom juróom-ñaari feet mat na rappelé bopp jullit yi ñu mokkal ko 24 suñu yoon nekku ci 31 suñu yoon nekku ci xam nga bu nu moom korité noo ko moom tabaski noo ko moom tamxarit bii noo ko moom fukki fan ak ñaar ci gàmmu noo ko moom guddi gi rasulillahi rañaanoon noo ko moom bis bi ñu soppi woon xibla muy fukki fan ak juróom ci weeru Shaaban noo ko moom njol makka doon jublu baytul maqdis ñu rettul ne ko mu jëm ca Kaaba ga noo ko moom bés bi mu naawoon jëli julli juróom noo ko moom yi ci des nag dañu cee wàlli ji dàq te sam pap Habib si radiyallahu anhu nee na tubaab yépp bu ñuulee ci gën a soof tubaab yi xonq yi bëgguñu ko te bëggatul boppam muy piis ak di sarati rek baaxul baaxul baaxul baaxul euh, yal nañu yàlla dimbali du ma yàgg ci lii may wax nii ndax bëgguma leen a euh, lu bare bare bare bare te duggaluma leen ci bindu Sidi Hadj Malick te man dama bëgg a soppi firi yin baytan baada baytin rek laa soxla bayti bu daanu rek ma sharxa ko jox ma beneen waaye firi gàmmu fii mu toll war na ko passé waxaala lamlaaku rabbal xalqi سيدنا أيبقى نبيك معدودا معدودا من اليتم قال الأملاك رب الخلق سيدنا يبقى نبيك معدودا من اليتم time I خير الخلق سيدنا يبقى نبي